bërki démb dafa am lu ma gis mooy euh, commandant wu Médina bi nga def ko estati ñaanal ko ma dégg ni booy Médina yi ñu ci bare bare yoon da leen teg loxo nga dem ñaanal leen intervention ñu bàyyi leen. waaw mais loolu moom dañ ciy dañ ciy sant bu baax suñu gars yi ñu àndoon parce que tey maintenant surtout xam lu ñuy wax mille pour cent maintenant te dama si ànd ak tam mooy Tamporo ànd seeg suñu rapport bi am mooy El Jazz yaa ngi mu kii daal suñu tudd kii daal jeunesse bi Law ah ak Ousmane Baye Fall bi asuka yi xam nga ñoo àndoon wax dëgg yàlla toog waxtaan ne booy kat ñu ngi jàpp booy boobu léegi booy ñu jàpp bëri na. te xam nga rek bu ñu bàyyee maintenant dina tas non seulement maintenant dina tas mais booy ñu yaakaar yi dañ leen boole. yaa ngi comprendre te loolu ay non yooyu xaju fi. El jaas ak yeneen gars yi dem tribunal man maa na tam pro ak maire bi dem xooli police quatrième euh, kii commissaire police quatrième bi mu nekk tam ku baax tamit macha allah comme leen nii xam nga am benn problème bu ñëwee déglu ñu attentivement wax ak ñun xam nga bàyyi booy maintenant si jàmm ak salaam ñu koy remercier si lu baax a baax tamit wax dëgg yàlla xam ne carrément que ñun maintenant lañ am ñëpp maintenant lañ am fii lañ juddoo fii lañ yaroo dëgg yàlla li ñu mën mooy carrément kat booy ni ay jafe-jafe ñu taxaw leen. boo ne si ay ay du lëndëm ñu leeral seen yoon mais lépp ci yar ak ci teggin xam nga parce que maintenant fii la ñu am bu ñu ko yàqee suñu maintenant lañu yàq bu mel ne bu tamit fi am malade saa du ñu am fuñ doon foofu jaar que sama kër na malade mais lakk na ko trop ak yeneen ak jàpp suñu ay frère ñi suñu ay frère lañ amoon lu ñoom ñaan maintenant ak réew mi jàmm salaam def daal bak seen naa waxit suñu laa jiñ nerf nerf bi man bañ nax sax man sax man maintenant bu muy gën a tar ci affaire ay nawetaan ay affaire équipe ñaan dugub génn fii man kéema dég si yooyu man jili man dama teel a yar sama bopp ci lu bari man bu ma gisee làmb nga ma gis bu ma gisee parce que damay sant sama waajur bu baax a baax parce que ruus naa tey ponk bu toll man ñu may woo di ma yedd ma ruus naa loolu moo tax quelque soit la situation lu mu metti métti damay xëy suba teel géntam entraînement guddi ma duggaat sama kër aw ma soxla fenn aw ma accès fenn entraînement lekk tëdd na xam ne j'ai une carrière à gérer dafa ñu topp sama ginnaaw ñu yaakaar sama ginnaaw bu baax di remercier ki nga xam te mooy sama rax papa muy Bada Diop baax a baax di ko baax bu baax a baax dafa may wóor bu ne dama conseillé na ma jaara fi jaara fi moom rek billaay wallaay taalaay waroon tax man sama jëm bopp lu ma def benn naa ko def diis ndax am na ay wax yoo xam ne boo ko sa papa waxee non yooyu boo ko deful doo nit bak sin salo sant sama papa tabaak itam baax a baax baax baax ci condition yu ma teg ak nu muy communiqué man baax donc c'est pas droit à làmb yàq na ci Mm, comme mbëru làmb yi. ay ñii ay nervi lañ ñii ñoo yàq làmb ñii ñoo nekk di wut fu ñu far fii ak fële ba léegi yéen waxoo leen ci dara. waaw man man man loolu loolu man du ma ci du ma ci du ma ci sori. parce que dama sori maanaam mooy àdduna tolluwaay la rek man li ma gëm mooy àdduna tolluwaay te kilifa ku mu woo ku mu woo nga wuyu ko tey fi ñoom Balla Gaye ak Modou Lo toll ñu bu fa tolloo ba ñu woowee dañuy wuy ji n'est-ce pas mm. tey Balla Gaye champion la Modou Lo champion toog te ñu woo leen. mun ñu woo làmb yëpp mais kër sax dafay am kilifa dafay sax am kilifa kii ñu diw ak diw ak diw la nga woo kilifa yooyu wéet ak ñoom si pet wax ak ñoom. da nga ko faral loolu ak ak ak ak yàq dafa dafa ute te fi Balla Gaye toll fi mu Lo toll fi Ama Baldé toll ñoom man Franc Reug ak yeneen gars bi fa tolloon. bu ñu woowee dañuy wuyu ji parce que kilifa moo ñu woo ki ñu woo moom moo jiite réew mi. Mm. dañuy wuyu xool lan la ñuy doyee loolu ce n'est rien à voir ak yàq. mbër bu si nekk dina fi nag ñu lay ñaan si jàmm ak salaam nga xam ne carrément nation bi maam population bi ñoo nekk sa ginnaaw dañ ko waral ñun du dóor du saaga waxtaan rek dafay dafa rek lu bari bari bari waxtaan rek da rek lu bari bari bari par exemple sama mun naa wax ñoom tey boo lu ñu bëggoon noonu def duñ bëri na bëri na bëri na bëri na na trop nag réew mi nu mu demee nii ñu ngi mosawu ñaan jàmm ak salaam ci réew mi parce que ñu loolu lañ xam. maa ngi man trois jours génn mosuma nekk quatre jours génn mosuma nekk dama fenn jaxla tit, sa dafa doy waar quoi met quoi vraiment. lamb actuellement ñu ci bare bare gis naa sax bo dugalee vidéo mbeur sax ñu ne nañ boycotté lamb te te lamb mom li wolof naan euh, mbam gatt na loolu way ci ciur gi la bok bu ñu attaqué yenn leader yu magi mbeur yu ndaw yi mom jarul ñuy wax ñi boycotté lamb non non moy mo lamb mu ñu ko boycotté lamb Sénégalais ñoo bëgg mu ñu mer nak parce que day mer mu nga mer na wax ko rek mais après day jàll quoi bu jàll après après day continuer rek il faut ñu am benn esprit de xam ne àdduna tolluwaay la te am na niveau booy toll tey da ngay bokk ci kilifa yi àdduna bi force lépp lu dogal Sénégal lañ lay woo. pourtant corona bi ñëw na fi pourtant mbëri def seen affaire action bu naaj mbëri kii di mbëri yëpp mbëri yëpp dem indi ay soutien jàppale état bi am na Sénégalais yi mer ñu wala moo tax la réew mi yëngatu kilifa gi woo mbëri mag yi gars yi di mer. tool àdduna tooluwaay la rek de tooluwaay la na mbëri ndaw jox kilifa yi mag maam ci respect mais carrément alwaay àdduna la képp ki wax si ginnaaw rek boo tolloon foofu bu ñu la wooyee da ngay wuy ji hmm. parce que kilifa la kilifa bu la wooyee da ngay wuy mu nekk kilifa bu mu nekk tey bu la wooyee da ngay wuy ji hmm. c'est obligatoire mais hmm. fekk nag fekk doo xam mais moo toog di wax loo xamante ne sax ba gars yi di wax fekkee woo soo waay dafa xaw a doy waar quoi vraiment ñu jox gars yi xam ne gars yi ay kilifa lañ dafa rëy seen àdduna ba yegg fu ñu yegg muy Balla Gaye muy Modou Lo muy Ama Baldé tëbuñ tëb nekk champion non non. tëbuñ tëb Macky Sall woo leen. non non dañoo war reyante seen carrière reyante seen carrière de seen départ kër am dara dem tey ba tabax ay immeuble dem ba dimbale ay joomu ay àdduna dem tey ba gérer ay famille loolu làmb moo la ko may. dem ba buñ fu ñu taxawatee ko bi fees làmb mun a ko may. mais na gaa jox cër boo xam ne ay kilifa lañu te kilifa ku mu woo da ngay wuyu am na solo ñu ngi ci càppaandaw ga maa ngi ñëw léegi ñu dellu siwaat ci entraîneur Fils de Balla moom liir na combinaison adversaire yi Fils de Balla war a am parce que diggante Fils de Balla moom mënu ma jee génn Lamine Gola nee na. Balla Fils de Balla ñii ñooy adversaire am. Forza. Giri ak yow. Fils de Balla sax war na ni moom du yow moom boole boolewu la sax ci catégorie boobu. mais mais moom fils de adversaire. waaw mais mais dañuy nuyu Lamine Golo baax coach bu coach bu am yar am teggin la coach bu mën communiquer la parce que ana émission bi tuuti rek xam nga ci lu bëri bëri moom na dellu coach sa moom man sama coach tey su ma ne woon tey maanaam boo daanee boo exemple boo daanee saa ma sa mbër naa fexe tuuti ba daan saa kees ma gëm sama mbër hmm. man Serigne Ndiaye. suma ma kati ne woon tey exemple boo daanee benn cible benn mbër ne ma kii boo ko daanee ma gëm champion billaay dinaa fexatu ba daan ko doon champion mais yàlla dogal na c'est dommage mais moom daf ko wax ni ko boo daanee kan interview ko si kii Lamine Golo la ko ci Lamine da nga di la bëggee sa sa sa gaynde gi wax mu hmm? liggéey kan te ñoo bàyyi ursu boobu bàyyi hmm. ursu boobu mu moo gën nee na gëj naa bëre trois ans bëriwul. non loolu nit dafay def comme. non nit ki moo tax trois ans bëriwul du coobareem ñàkk adversaire moo tax bëriwul mais toog trois ans bëriwul mais bokk nañ échelon bokk nañ catégorie bi nekk yéen bokk du caché làmb moo lëpp caché làmb làmb moom la gën a ni moom da ka ko mën bul ba tax nga wax la ne war kii wul quoi. bokkuñu catégorie xamante bu jël lamb waxtaan bi tey bëgg a teg si Fils de Balla non non bu dugg foofu. parce que Fils de Balla fi mu toll nii moo moo ngare la moom laa mujjee jëli. waaw waaw non waxtaan day waxtaan bu jël lamb yi kaas yëpp tamit teg ko si ay Fils de Balla non non. dama ne la Fils de Balla kese bu nekkoon si ay mbër man tundum man taxu bokkuma ko boole ma sama carrière wala déggoo ma boole ma ko sama carrière. ñetti yoon bu pare fi ma teg sama bët ci lamb billaay walaay taxul may entraîné taxul sax ma yeewu sept heures di entraîné non dëggu ma xanaa bul dugg bul bul kii bi di ko teg ci ay fii ak na man. wax dëgg mais loolu moo am mais mais su ma ñëpp moom moom moom jëlee naa ko moom. moom jëlee naa parce que am na ñu ko gën a supérieur fuuf ñu ko gën a ës fuuf ñu fa nekk fuuf nekk ay champion man ñu lay jëfandeel ñu lay bëreel te ñooñu ñoo la gën a xam loolu foofu mais pas moom. man dama dugg ci làmp être le meilleur des meilleurs du ma ci làmp nekk fii naan ay noo ci diw bi diw bi lay focaliser man ku ñëw dama lay faxat ku ne sama yoon te ba ci laa nekk dama taxaw ciblé kenn nag ma ñaan na yàlla nag am naa droit ne waa ci kaw ne ñoo may loxo ma ñëw mais boo bëggee jël boo xam ne ay fils de balle ay naskan noonu temps bi fi mu suudu sotti ndax man man ak moom wallaahi làmb du ñu boote du mos a boole. sama recherche ci kaw mu la war a bëreel. bu bëree bu bëree baax na bu nangoo. bu nangoo mhm. baax na. nañ bëri suñu bi xel lañ man daal may xaar daal loo ci kaw daal ñu même loxo su ma ma gënal loo ci kaw même loxo. tas ma a bëgg mu naa bëri Eumeu Sène trop nag lu jiitu. Eumeu Sène dama bëgg bëri Eumeu man parce que dama ko dégg mu wax naaj si booy yi pare moom courage ne booy ne booy yëpp waaw ne booy yëpp. ne booy yëpp. moom da ne booy yëpp. so amoon loxo gënal mu contact ak boy bala ma bëri boy ah mu contact ak ñom ba bala bala balaa ma bëri booy. Ah, xamul la lu xam fa neex. wala ah, ah. mo tax mo mëna ko légui mo na ma jox RV mbaaw rek fu ko neex ci gërëm mu ñu mëx contact fa mu signé contrat bi ñu bëri. du am seen akar. la rëggee sito la sito hmm ko daan ko daan ko daan yëpp. waaw lamb ji fa tole nii ubbi lamb ji gars bëri suñu biir mu ñu bëri seen biir ñom kasse kan. Hmm. loolu làmb dafa nekk nii de. waaw rek waaw rek Bombardier bëgg naa ko foofu tamit. lu tax. trois fois. déedéet. nga bëgg ko laaj ci arène. mais loolu daal arène baxul bokkul bokkul de. yow sa diggante yàlla mën mbir yu gars yi man bu ma ñoom dama gën a pare sur tous man boo déggee gën a pare maanaam boo dama nekkoon xale man nekk géree maanaam dama nekk samay entraînement bopp nekk géseeg yooyu mais boo ma demee boo commencé dugg ay musculation amay coach su may teg si court mu la nekk nii bu la gars yi convoqué huit heures boo ñëwee huit heures cinq sa doo entraîné amay amay coach personnel nga xëy di entraîné suba nga ko dégg bëccëg non ñoo xam ne ne changement am na ñoo xam ne ku ci bëgg Serigne Diagne numéro deux billaay wallaay boo tëddee doo nelaw hmm. waaw am na solo ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax kii moom yaakaar naa ni kenn la ci gaa yi Serigne Ndiaye maa ngi lay siyaare noo tudd. pour tam. pro tam. ce que tam pro gënul jàll pro tam. waaw ñaar yëpp benn la tam pro pro yëpp benn la. waaw ñu ngi leen di nuyu waa jàmbaar news. di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay. di am mbégte ak contentement di nuyu téléspectateur yëpp. ak euh, képp kuy suivre jàmbaar news. ñu ngi lay gërëm di la sant. Serigne Ndiaye yow lan nga ci moom. C'est Serigne de dama président comité de soutien am en même temps président fan club am. Hmm. ba paré mën nañ né tamit bokku nañ ci conseil yi. Hmm. Hmm. wax yépp lo ci jàng. parce que c'est un jeune bo il a une jeune de champion. am une herbe de champion. te koku ku ko xool du kuy taxawalu dañu am yoon te suñu yoon nak wax dëgg yàlla bëgguñu tamit ku ko tardel fi nek comme ni nga nañ ñëw bëri parce que la. te xale mooy bëreeg xale xalem am na ñoo xamante ne ñu nekk di voyager dem jël ay vol dem entraîner ñëw ba pare di taamu loo xamante ne mu leer ni lii taxu leen a jóg. mbër bëri nañ fi mbër yi fi nekk dem di bëri nañ fi ay ñoom gars yi fi nekk yëpp boo xoolee. gars yi mais xam nga fis de Balla tey bu taxawee ne moom du bëreeg Serigne Ndiaye. no day wax lu ko neex rek. moom moom xam na ni combat boobu arbitre sifflé na jàppante nañ daan na ko la ñuy dégg. te ku yéex sax du gis jël bi moom xam na loolu bu baax. no déggoo li ma la wax. ñoom ñoo ñu xamul ñoom ñoo xamul booy bi ñoom ñoo xamul Serigne Ndiaye bu baax. combat tay ma dee yëpp da cee génn. waaw bii nag du ci raw. bii moom day duma day daan. bii bu duggee moom moom mooy dee. Serigne Ndiaye yoonam la ne. moom sax nee na ngeen prouver ba ci kanam. moom bañu leen a moo war a prouver parce que bokkuñu yoon. bokkuñu yoon te duñu benn kii moom laa la wax dafa am lu mu yuut dafa am fu mu jëm caaxaan taxu kaa jóg ñun lan la ñuy wax Franc na ñëw leeral combat moog Serigne parce que tey bu bëggee confirmer ci làmb dëgg dëgg dëgg li jiitu mooy mu bëreeg Serigne bu ko daa bu ko daanee moom làmbam dina leer te bu bëggee daan nag il faut mu bëreeg booy bi. ku daan sa liet naa moom soxlaatu la. waaw mais non ñoom ñoo tudd affaire de liet naa xam nga gis nga làmb tey gis nañu ku waroon bëreek diw dem bëreeg keneen hmm. mais làmb dafa dafa toll foo xamante ne tey bu Serigne Ndiaye bëriwul ak Franc kan buñ ko ñemee waaw ñooñu day fekk ñu ñeme ko mais yow ñi ngay tudd yëpp nanguñu bëre général sax combat la déggoo déggoo déggoo li ma la wax ñi ngay wax ñëpp xalaatu ñu jël Serigne Ndiaye bëre moom yow yaa koy tudd nii mais ñoom duñ ko tudd te buñ leen joxee avance duñ ko jël franc na ñëw bëre ak Serigne Ndiaye confirmé wan ni nag làmb ji moom da ko war a téye te bu bëggee téye làmb na bëre ak Serigne Ndiaye bu baax neel dañuy ñaan rek. non du question de sax ñaan lamb lamb da leen boole. xam nga tey moom li ko li ko Serigne Ndiaye def récemment xam nga Serigne wax na la ko. Hmm. ne la moom ñoom ba ñuy bëreeg ñoom dañu fekk ñoom ñu jiitu ko ci affaire yi. Hmm. mu nekk xale mais moom ba mu commencé entraîner ñu commencé ko encadrer mu tegu ci yoon ñoom ñëpp nan la leen mujjee def. Franc da ko simpi te bu muy soog a jógee Paris la ak dooleem taxaw mu leer ni ku mu jàpp da koy fooyee mu ñëw boobi da ko manipuler teg ko ci suuf te bu bëggee loolu amaat mooy na ko jël arène. bu ko jëlaatee arène da koy simpi teg ci suuf làmb ji jeex. waaw waaw di la jaajëfal waaw xam naa balaa boobu sax. xëy non si il est temps promoteur yi pour millions yi ñu leen fay yéen ngeen mobiliser. waaw xam naa xëy na sax balaa loolu dañuy sant di gërëm waa yëpp. Hmm. parce que man du ma ne sax Serigne Ndiaye doomu Ndakaaru mais dama naan Serigne Ndiaye alalu Ndakaaru. Hmm. alalu Ndakaaru la xëy na ñu nekk tamit alalu Médina euh, di di di gërëm di sant waa Médina yëpp ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo sëq ñoo dëkk Médina yëpp Fass Gueule Tapée Colobane Fann Plateau Biscuiterie Wakam lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax combat bi gars def nañu présence tamit di saw boo yi nga xamante ni ñoom la ñu jàppoon par rapport ak ci événement yi nga xamante ni moom la ñu jógee euh, tamit xam nga Médina ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que tamit nous sommes tous des frères xamna na fait yu fi mu ay difficulté mais ñu dox ko yalla def ci jamm wax le commissaire monsieur le commissaire bu euh, police avons e ñukoy di ko fait tamit euh, def na yëfu kilifa wax nañ ko def na liggéeyam liko yon may waye tamit mom tamit nañu ci xam tamit war a suñu tank la Nous wara def ak éviter te bañ waxtaan ah, ko wax ko grand ah Abdourahmane Boubs Baye Fall suñu El Jazz rappeur xam nga ak suñu tata bi fi nekk nii Assou Gueye ñoom Moustapha Cissé Khadija euh, Mirna TV ñoom ñëpp gars yi ñu génn ñu dox ko xam nga ñoom ñëpp ñu def ko affaire responsable parce que tamit ak euh, Ibrahima Traoré moom mu nekk président commune euh, commune bu Médina ñu dox ko wax dëgg yàlla ñoom Zano Bokande ñu nekk ay grand yu noble dëkk ci quartier bi parce que tamit maintenant moo ñu ñor te bu ñu fi nekkee tolof tolof am ñëpp a war a jug kenn warul seetaan tamit bu booy nekkul si jàmm ñun duñ mun a nekk si jàmm ndax maintenant pour mu nekk si jàmm il faut que jeunesse Médina nekk si jàmm il faut que la cité nekk si jàmm ñun tamit ñu mën a nekk si jàmm parce que Médina moo ñu moom te lu Médina bëgg rek ñun moom la ñu bëgg lu Médina bëggul tamit wax dëgg yàlla duñ ci teg suñu tànk bu ñu waxoon tamit lii arrêté lañ ko dañ koy arrêté ndax ñun commune bi moo ñu ñor donc noonu la demee donc tamit wax ni booyi pare nañu pour jàppale Serigne Ndiaye ak lépp loo xamante ni wër na Médina boo xoolee combat yi booy nelawuñu génn nañu booy yëpp à l'unanimité def nañu mobilisation bu doy waar dem ba stade sax am nañu booy yoo xamante ne mënuñu dugg ndax problème bloc xëy di gërëm autorités yi nga xamante ne jàpp na ci combat bi yëpp mais bëgg nañu tamit xëy na prochainement ñu gën si jàpp parce que xam ni tamit Serigne Ndiaye fi mu toll ci làmb champion la te tollatul foo xamante ne ay mbiram xam nga dañ koy yéexal donc bu buñ ci mënee jàpp ñu teel si jàpp di ci woo suñu président Barthélémy Dia euh, suñu grand-mère. waaw xamu tax xamu tax ñoom. Hmm. xamu tax ñoom ñu war a leen mën a wax ak ñoom parce que tey parce que tey ñun ñoo leen di recevoir hmm. am na fu mbër di moom moment boobu noonu moom day nekk ci ay activité am te ñun ñooy gisante kilifa yi. Hmm. xam nga monsieur le maire Barthélémy Diaz ñu xam ni nag ah Serigne Ndiaye alalu Ndakaaru la te muy jàpp ci combat am bii tamit jàpp na ci bu baax a baax suñu monsieur le maire Bamba Fall monsieur le ministre Seydou Gueye Cheikh Ba ñu ngi koy woo suñu tonton Siri yu su Diall xam nga as jëm ca kanam ñu ngi leen woo grand Paco Jackson ñoom ñëpp ñu nekk ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax donc tamit ak monsieur le maire Fass Gueule Tapée Colobane monsieur Paye ñu ngi koy sant di ko gërëm grand Jean Bokande ñoom ñëpp gars yëpp jàpp nañ ci combat bi donc ñu leen di wax rek ah Serigne Ndiaye seen Serigne la seen alal la ñoom ñaar tamit ñu ngi wax ak ñom mm. ñu xam tamit ci commune bi moom lañ bok tay autorité lañ mm. muy madame kan Awa Diène député pur mm. ak Ngouda Diène di député pur xeyna ñom tamit nañu duggal sen loxo ci li nga xamante moy jeune medina yi nek en activité di liggéey voilà donc loolu lañ waxone te gaay tamit nañ ñëw bëre bombardier mom suñu tonton la suñu nijaay la suñu papa la wax deug yalla mu nek un champion amul luñ ko wax deux fois roi des arènes tay mi ngi bëreeg bay commencé di bëreeg ay doomam mm. donc dañ koy ñaan yàlla rek balaa moo tekki ngam ngembam mm. mu jëlañu Serigne Ndiaye may ko chance ñu bëri Lac de dégg nañu wax yu rafet yi ngay wax ci booy bi moom itam na may booy bi chance gars yi tamit comme ñoom ñoo fi nekk mm. xam nga ni kii ñi fi nekk di wax yëpp booy fii ba suba duñ bëri moom te ñoom ñii yi nañ ko may chance am xam ne tamit dafa am lu mu war a jël te ñoom loolu rek lay xaar pour mën a jël euh, roi des arènes bi incha allah macha allah am na solo fi ñuy tëjee Serigne Ndiaye mooy seen seen xarit seen nawle mbër Ada fas mu dekk euh, mu dekk fas nga dekk medina donte on yon la euh, ben la mu nek ci ay loxoy yon euh, lan ngay wax ci lool wa yow solo di ko masawu rek di masawu ay sonna ak famille bi parce que fas medina mo jur fas xam fas ndakar Dakar la bokku medina ndakar Dakar la bokku donc tay kenn suñ ñun bu nek si ay jafe-jafe rek da ngay ñaanal yalla dafa ko jàmm ak tawfiq bu baax baax ak sun Tuubaa si rafal moom ñu ñëw rejoindre ay mbokkam ñëw yeggali liggéeyam parce que dafa nekkoon ci buntu làmb. nekkoon si buntu carrière nekkoon si point bu am solo ci làmb. te ku su ne tey li mu am yéene nañ ko ko di ko ñaanal jàmm salaam. ba mu ñëwaat daal ba ak seen naam Mouhamed. non dëgg yàlla miinti wuñ nag. daa mel ni seen diggante est-ce que ratax na. non miinti wuñ nag dëgg yàlla miinti wuñ moom. Hmm. miinti wuñ dafa romb ñu yoon de saa saa miinti wuñ. Hmm. mais comme ñun loolu suñu problème mooy hmm. xam nga dëkkal Ndakaaru xam nga ta te bu ñu nee aara Fass waxuñu aara Medina aara Fass ñu wax moom ma nekk écurie Fass di représente Fass donc mu mu def lu ko jàmm salaam di ko ñaan mu réussir mooy Samba Ndour Touba baax a baax Samba salaam ak waa yëpp waaw wax dëgg yàlla kooku moom waaw kooku moom kooku moom kooku moom beneen affaire la quoi di nuyu tamit Jamil Nourou la baax a baax di ko sant baax di ko gërëm xam nga di nuyu suñu Cheikh Tivaouane mu ngi États-Unis di ko ñaanal jàmm salaam suñu baabu Adama Cissé Tivaouane waa Jinde maa ngi sant bu baax di leen gërëm ki nga xamante ne mooy suñu baabu Modou Fall nekk Taïba ma ngi koy sant bu baax di gërëm suñu baabu fallu Fall Ndar Marieur suñu baabu euh, Baye Cheikh ma ngi sant ba di gërëm tonton Maguette waa Zoali waa Ñoojoor basul basar ñoom ñëpp tudd nga leen sax waaw xaar non xaar non ça li leen ci am non fa ma tudd xam nañ sama sori yombul hmm tey da ngay xam temps dama doon dem entraînement téye nga ma tey mais ma loolu nag ma sant gërëm nag te yàlla tax di la nuyu itam baax a baax di la sant bu baax vraiment di nuyu wa wa golf yi suma maam xam waa golf yëpp di nuyu encore une fois ci waa Medina ma ngi sant bu baax waa Medina di leen gërëm bu baax a baax a baax baax suma président Fass Kër waa Medina bi ma ngi leen di bu baax bépp mbër bu combat suma boy Ibou Afia dafa combat yàlla nga ko ndam bi ma jéem yàlla defal ndam jéem kayre suma frère yéen xel dafa ndam suñu bab boy kere di koy sant ba de ko ci numuy numuy taxaw nu muy taxawoo mbirum di ko sant ba de ko ci lolu lolu lu naa parce que mille pour cent ku taxaw mu ñu taxaw ku xewle mu ñu taxaw dañu encouragé ñu ñaan yalla dafa ndam ñu koy sant bu baax baax baax de gërëm di nuy ñaan suñu bab bara nak yalla bay ko bas kërëm yalla may ko wër ak wérle yalla sam ko ar ko bak suñu bamba suma famille nak suma mag yi suma famille ma ngi ñëp di sant di ñëp gërëm ñëpp daal jërëjëf euh, waaw. pour balaa ñu ñu terminer loolu rek. Hmm. di wax comme niñ ko waxee sànq Serigne Ndiaye alalu ndakaaru la. Hmm. xëy na wax na ko léegi mille pour cent Médina bi yëpp. Hmm. donc képp koo xamante ni ñu ngi fi nekk il est en concurrence avec personne. il fait que suivre sa carrière. ñu teg ko si yoon teg ko ci code mu am fu mu war a jëm. donc tey ñi nga xamante ne fi fiy nekk di créer ay xéewaloo ak ay féewaloo ak ay ŋaañoo ci diggante ay nit ak nit. il faut que ñu arrêté ñu xam ne loolu dootul jàll parce que tay ñun gën yooyu dépassé nañ ko c'est fini maintenant mom avec ses frères ñom ñëpp ñoo bokk ben donc bébé Diène bu amé combat Serigne Ndiaye da koy jappalé muy contact muy Diène Kayré muy ñom Manick ak ñoom Modou rek rëg kii safula fils Manick fisam la xam nga ak double moteur bi nga xamanté ne mi ngi plateau donc ñom ñëpp tay nañu xam ne ni tey dañuy mayante contact seen biir ku ci am combat potentiel Serigne Ndiaye day ñëw taxaw dooleel la jàppale la taxawu la donc tey concurrence amatu fi lenn amatu fi muy Ada Fass di ko ñaanal yàlla fi mu nekk yàlla may ko jàmm may ko taxawaay ba mu ñëwaat fekk si ay frère am ñu jàppale ko taxawaat ko encadré waat ko hmm. ndax c'est champion ba pare am na cër ci làmb donc hmm. yooyu yëpp dootuñu seetaan muy dee te yi koy rey nit ñi xam nañ ko te hmm. loolu tamit après day jeex fii biir Médina donc loolu la ñu waxoon dañ koy tëjal di leen jaajëfal jërëjëf mbokk yi Serigne Ndiaye 2 la woon ñu lay jaajëfal bu baax di len jox dig daje ba ëllëg incha ci benen xew-xew lamb jërë ngeen jëf.